gan gi ni nga ko waxee Anna Meissa Babou la économiste di ko jàngale itam euh, sciences économiques euh, kon ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinal bi. waaw maa ngi leen di fay baax baax baax. Mhm. alors ñu euh, euh, tàmbalee waxtaan wi ak euh, li fi amoon fan yi di fitna gi yeew woon ci langu politik gi jàngatu politik ak jàngatu économiste certainement mënta doon benn ban taxaw seetlu nga am ci xew-xew yi ak xëy na njeexital yu mu mun a jur ci ci koom-koomu réew mi. waaw maa ngi leen di fay baax di leen wax ne. c'est vrai Sénégal moom li mu li mu li fi xew ci fan yi wax dëgg yàlla dafa xaw a jéggi dayoo léegi li nga xam ne moo économie bi day matière boo xam ne nii moom jàmm ko jàmm ko jikk ba nga xam ne réew mi fekkente ne ñu dañoo réew mi ndaw moo xam ne dañoo war a débrouiller pour <coughs> mën a avancer fekkente ne dañoo toog lu mat ay juróomi fan liggéeyuñu ah loolu dafay xaw a doy waar moo tax jàpp naa ne lii jiguñu ndax soo xoolee yàqu-yàqu yi dafa euh, jig dayo dafa dem toll foo xam ne ni euh, Sénégal mënoon na bañ a nekk ci nekk ci niveau boobu daal hmm. ndax li ñu fi toj ak li fi taal soo déggee benn Dakar benn terre rek ne la soixante millions perte nañ ko ci benn bis. Hmm. lu toll noonu di cinquante millions chiffre d'affaires entreprise bu mel ni Dakar Dem Dikk. Hmm. nga daal di ci dolli peut-être à beneen chiffre d'affaires boo xam ne tey càq yi la. Hmm. wala nga jël taxi ak Ndiaga Ndiaye. loolu donc donc donc donc day taxaw la day taxawal économie. ndax ñoom nekk nañ ci benn dimension. liggéey boo xam ne farata la ci euh, suñuy croissant ba ca desit mooy xam nga fekkente ne réew dox taxaw day fekk production nationale ñoo production nationale bi dafay wàññeeku mm-hmm. loolu su wàññeekoo dafa am ñun ñu tudd croissance daf ci am jeexital loo xoolee yëpp nag mooy li nga xam ne xëy na ci bët danañ ko gis live iceberg mm. dafa am lu ñuy gis ci kaw mooy toj lañ ko commerce ba yàqu te xam nga Sénégal euh, commerce euh, informel dafay am doole mm. ndax ñëpp amuñu doole soo ci boolee toj boo xam ne nii bala koo ko defaraat au ko defaraat day bari mm. daal dañu toj fa a kon début ñetti fan yàqu na dëgg la mais redémarrer mhm. eh, mën na compliqué ci lu am na sax ñoo xam ne mën nañ si joxe yàqule euh, faaw dootuñu amati doole mhm. pour recommencer mhm. mais nag li ñu gis loolu mais li ñu gisul dafa am secteur bu rëy boo xam ne tourisme bu njëkk sax dañ daan wax après gerte gi. Mhm. tourisme tourisme moo moo yoroon Sénégal léegi nag tourisme boobu ambassadeur yëpp woo nañ seen i euh, mbokk ne bu fi kenn ñëw Sénégal ndax Sénégal euh, wóoratu mhm. bu fekkente ne nag ak secteur lëmm da ko tëj loolu jeexital ba euh, day rox mu dayoo am na tamit ñoo xam ne ñu ngi ci réew mais seen alal wóoratuñ ko fi bàyyi. ña ngay def ay transfert dañuy jël seen alal yóbbu ko ci réew moo xam ne nii moo gën a calme ba ëllëg sa biir lu xew du leen kon yii yëpp sooy xool ay jàngat la jeexital yoo xam ne nii euh, dayo bi dafa xaw a euh, rëy daal. mën naa wàññi itam peut ay investisseurs yu naroon na ñëw. voilà am na <clears throat> ñoo xam ne nii effectivement ay investisseurs lañ yoo xam ne nii war na ñëw te ñooñu tey. Euh, yàlla def na euh, xëy ñu ragal. Hmm. ragal bi ñu ragal nag euh, dana tax Sénégal perte ndax xam nga ñu dañoo nekk compétition maanaam wujje hmm. réew mu mel ni Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire hmm. réew la ndax sous région ñoo ko bokk. bu fekkente nag fii dafa dal fee ki nga xam ne dalul moom. mooy perte moom mooy am problème. Hmm. kon nag investisseurs yooyu suñu demee tey tànni Côte d'Ivoire mais Sénégal ci perte yu bare bare bare. Hmm. alors euh, loola am ci jamono boo xam ni mbas daloon na ci kaw euh, àddina bi waaye itam guerre Ukraine euh, Russie bi ñëw am lu mu def ci wàllu koom-koom Sénégal nekkoon ci jamonoy relance tey lii ñëw dal ci suñu kaw euh, tey boo doon docteur di seet euh, koom-koomu réew mi naka la def. waa xam nga ñun fi nit ñi sax ñi ñi ñun jeexum ndax eh, guerre bi eh, covid bi d'abord ak ger bi li ñu fi def ci ñoom rek mi ñu fiy taaje ba léegi mooy inflation maanaam njëg yi jóg njëg yi eh, toll nañ foo xam ne ni tey neexul kenn mm. muy inflation léegi nag bu fekkente am parce que xëccoo yu mel nii mën na tax soble manqué. Mhm. mën na tax leneen manqué te xam nga marché da ngay cher. Mhm. xam ne effectivement mën na indi ay euh, benn jeexital bu bon a a bon ci suñu koom bi. te que loolu daf ñu sonaloon gouvernement bi génn na alal nag di bëree bëri bëri. Mhm. pour def ko ci pour jàppale benn koom yi jàppale ñaar askan wi ak ay subventions. ci yàq. pour defaraat hmm. ñu doon xaar taux de croissance à deux chiffres euh, euh, ginnaaw gi mu wàcc est-ce que mun nañu séentu jogaat bu gaaw wala da ragal ñu gën a wàcc. waa taux de croissance bi nag moom dama ci waxtaan ak ay seen i naataangoo ñooñu ñëpp docteur lañ hmm. jox ma document boo xam ne ñun nee nañu waa Bade ñoo ko def document bi xam nga bu njëkk dix pour cent lañ ko. après ñu ne huit. Hmm. wante dañuy wax huit huit pour cent bi dañ ci dugaloon pétrole ak gaz. Hmm. ñu dem ñoom ñu woo ma semaine passée rek la. Euh, gaz bi naan euh, na ne du du commencé ren dafa am ay jafe-jafe. Hmm. léegi kon xëy na de croissance dem cinq pour allo déggante bi neexatul. Hmm. allo Meissa Babou. Ah, waaw waaw déggante bi dafay xaw a jafe yenn saay waaw. ñu ne ma daal. Mhm. cinq pour cent léegi nag bu fekkente ne production maanaam liggéey ci réew mi mooy mooy yóbbu mooy moo fekk foofu. waaw mhm. ah, soo toogee juróomi fan liggéeyu ak ci biir janvier bi xaw ma février amoon na dañ jox jox mën na ñaaw leneen leneen dana amaat mu mhm. ne xalaat ne lu mu gàtt gàtt mën nañ ci perte benn. point. Hmm. benn poñ mu croissant ba nga xam ne kon xëy na tey su ma ko doon présenté quatre pour cent laay wax. 4 pour cent ci taux de croissance euh, waaye président de la république démb dalal na secteur privé bi euh, waxtaan ak ñoom ñàkkul xëy na gën leen a ñaax ak bëgg leen a dooleel bu ko defee ñu gën a euh, taxawu koom komu réew mi ndax production nationale bi itam lu am solo la est-ce que bu secteur privé boobu taxawee ak peut-être effort yi état nar a def mun nañu yaakaar malgré tout que ni ak dalandi dina am ak surtout stabilité ci ci économie Sénégal. mais condition liggéey bi moo moo jàppale xam nga avant lii dañ doon fàttali léegi muy guerre bi ak Covid bi. dafa tax euh, maanaam inflation bi mu àndal dafa tax ku doon jëmi ñett jëmi ñaar. ndax su chéré rek xam nga demande bi day wàcc. te demande su wàccee ka doon produire day. day wàcc production day wàññeeku. kon voilà kon déjà ñun. avant même événement yi rek. Mm-hmm. entreprise yi mën nañu wax ne am nañ tuuti problème léegi nag su ci li duggee day yokk problème yi mais ñu jàpp ne euh, chef d' entreprise bi effectivement seen rôle mooy léeg-léeg su sooxee benn ñu dem gisee état moo xam ne lu leen état di dimbalee Euh, kon euh, ñuy jéggalu bu baax a baax ci euh, dog-dog boobu ana xam naa ne fi la ñuy yem suñu gan moo am tuuti jafe-jafe nekk ci yoon ñàkkul di xëy ñu koy gërëm bu baax a baax Meissa Babou kon di économiste enseignant sciences économiques ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru